aca jërë ngeen jëf euh, yéen sunu mbokk internet bu 221 people ñu ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di delluwaat ku nekk sa wàccuwaay amaat kontaan ak mbégte bu baax a baax ni ma ko faral di def ak kilifa yëpp tey ma fas yéene dalaat beneen kilifa di kàngam xam naa sax ci biir site bi moom du ngeen ko gisee di ngeen ko xàmmee bu baax a baax ndax euh, doonu fi gan kooku la ñuy tudde Serigne Abdoulaye njaay di yëngatu ci lépp loo xam ne bokk na ci affaire bio ndax ni mu koy defee saa su nekk nit ñi am ci moom yaakaar a a ba ñu dinañ waxtaan ci biir réew mi ak li nga xam ne day xew saa su nekk ci àddina bi wërngal këpp euh, sëriñ Abdoulaye Ndiaye ma bala nga nuyoo ak mbokk askan wi. waaw jëf waa 221 people ginnaaw bu ñu delloo sant suñu borom julli ci sangu-sang yi gërëm waajur yi ñaanal kilifa diine yu aada yi daal ñaanal mbokk yëpp yi nga xam ne jamono ji ñu ngi wéy di ànd ak ñun di ñu seetaan boole ci di ñu déglu ku ci nekk fa nga nekk ñu ngi ñaan suñu borom yokk la jàmm ak salaam. mbokk yi nekk ca bitim réew saa su ne rek di ñu bàyyi xel ñoom tamit ñu ngi di gërëm di leen ñaanal ñi jiitu di ñaan foofee ñu nekk gënal leen fi ñu jóge liñ fi bàyyi njaboot gi alal gi di leen ñaanal ñaan gi di leen fekk ci foofee ñu nekk. waa 221 people dañu am mbégte nag ndax euh, ba ma waxtaanoon ak yéen ak léegi war naa def at te bañ ca jóge am nañu yokkute gu mat ci wàllu zaahir ak baatin kon damay wax ne 221 people ñi koy seetaan ay nit ñu baax te nit ñu baax laa ci xam te. ba ma ci duggee am naa ci ay partenaires yu bari ci ay doomu réew mi yu nekk bitim réew bëgg yëngu ci bio te formé naa ci ñu bari di leen wax ne ñoo ngi leen di jaajëfal te askan wi leen bàyyi xel te di leen wax ne ca kaw sa kanam ci lu baax jërëjëf sëriñ Abdoulaye Ndiaye kontaan nañu bu baax a baax ci sa nuyoo yu set yooyu ànd ak dal wante nag ku ko xam-xam ko ci mu yëngatu ci médecine euh, traditionnel euh, du ngeen ko gisee bokk na koo xam ne yore na benn euh, kiyam boo xam ne comme mën naa ne cabinet bio rahman lañ koy wooye mu ngi ci gere bu baax a baax nit ñaa ngi ci gis seen tawféex acca kontaan nañu bu baax dalalaat la waaye laata may tàmbali nag dugg sama biir question mu di médecine traditionnelle bi nga yëngatu bëggoon naa ñu dellu si ci bu baax a baax laata may samp sama question nga loo ci wax jërëjëf cheikh bi ñu kontaan loole soo ma ci laajee damay bég kontaan ci ndax lu ma gëm la nekk ci suñu borom di ma ci dimbali saa su ne ñu ci am yokkute gu mat goo xam ni cant rek lañ ci am saa su ne. médecine traditionnelle bu Sénégal la nag médecine boo xam ne dafa yàgg mag ñi daa ko def defin wu rafet ba tey su région bi euh, du ma ne ñoo leen gën la de waaye suñu bos set na ba ku ne ñeme ko ñun nag buñ dee ndaw nekk ci wareef la mooy ñu yaatal ko sur le plan international. loolee nag ci la ñuy dox ndax France 24 ñëwoon na seet si ma nataal gi moo koy findeel ñoom yeneen ouverture tey sœurs yi ak ñu bari dañuy liggéey ak ñoom li koy findeel mooy li fi mag ñi bàyyi mu rafet tamit ñu def ko ci anam yu sel di def lu ñu xam di def lu ñu mën te di góor góorgóorlu ngir lu ñu mënul ñu jëm ko mën loole lañuy dox ci médecine traditionnelle di ñaan état nag ne yëf yi dëgg la te lu dëgg lu ne mooy ku ko laal ku ne gis ci sa bopp moom autorisé ñu ko ndax jamono yi ñu nekk yëf dañ ko toléré bu ñu toléré nag mbir boo góorgóorloo nag di ko teg ci yoon mën naa am yëf yi yaatu di ko ñaanal ñëpp ñu ci yëngu képp ku ci nekk daal jàppal ne dëgg la ndax fa la àdduna jëm. foofa sax laay samp sama laaj ndax dugg nga fa ndax damaa bëgg a dellusiwaat bu baax a baax ci nguur gi ndax euh, bëgg ngeen ñu euh, tàllal loxo ñu gën leen a jàppale may leen doole ndax li ngeen di def itam ndax euh, xam nañ ko bu baax a baax yéen a ngi ciy béy seen waar bu baax a baax lan ngeen gën a séntu ci moom dëgg dëgg yéen ci yëngatu. waaw li ñu ñuy xaar ci nguur mooy mu autoriser ñu ko ndax jamono ji ñu nekk dañu ko toléré mbir buñ la ko toléré nag ki la ko toléré day teg charte marche ci médecine traditionnelle dañ la ne soo koy def nga defee ko fa nga dëkk fañ la xam fañ la xàmmee fa say mbokk nekk parce que nit su dee yëngu ci dara say mbokk ñoo war a ñëkk nangu say mbokk bu ñu nangoon nag mu yaatu kon état euh, dañu koy fàttali ndax xelama nga ci ñun ñi ci nekk nag li ñu war a def mooy ku ne jàpp ci Ablaye su defaree lii keneen defar leneen suñ ko dajalee day doon lenn su boobaa état dina ñi kat foofu ñu dañuy liggéey tant que coow li wax ji wàññiwuñu ko di indi luy findeel ne ñoo nga ca gëm naa ne ëllëg comme ni ko benee defee man damay bouger soo demee ci yeneen régions yi ci yeneen réew yi da ngay bëgg kontaan ndax ñoom ñi ci yëngu dañu bokk ndey ak bokk bàyyi te ay nit suñu dekkee ci dara yëngu ku ne yeneen teg jàmm gëm naa ne suñu borom ci boppam mooy saxal yëf yi te bu saxee rek yaatu fa ñu dugg nag euh, lépp mën naa ne ci mbiram faj ak ñaan la ndax duñ ne bio gis ngeen li mu làmboo li nekk ci biir ñoom dañu gëstu tarkalla yàlla may na leen ba foofa laay sampe sama laaj donte feebar mu ngi woon ci biir réew mi bu di mbas mi ndax euh, foofu nag dañuy wax yéen tam am ngeen ci pàcc ndax di ngeen xel di digle di ci jàngale euh, ba tax na ci mbas mi nag bëggoon naa ne lan nga ñu ci mën a wax boo ak léegi comme que mu ngi fi mu ngi faagaagal niñ koy waxee nit ñaa ngi feebar lan nga ñu mën a wax ci mbas mi lu yàgg la ci àdduna daa fekk ñun jamono ji ñu nekk ñu dajeeg bii bii nag mu doon lu yéeme lu doy waar ndax dafa lëmbe àdduna ndax boo dee gone di wax ak ay mag suñ la nettalee nga xam ne lii musu fee am mbir nag su amee ci mbir ku nekk ci ñun daf ci war a def ab jàngat gu yaatu ndax euh, lu lu wër àdduna soo xoolee la ko sabab mooy Chine la amee ka ko gis mooy docteur koo xam ne xam-xam daa màcc jëm ci paj am lu mu gis yëkkati kàddu wax ñu ne ko doo ko fi waxe ñàkk koo déglu moo tax yëf yi yaatu kon ma gis ne mbas mi dafa am luñ ciy jàng mooy esprit d'ouverture amu ci déglu nit ñàkk déglu nit moo waral li nu mel ndax ki gis ne lii day màtte nga ne soo ko fi waxee ñu ñu indi la jafe-jafe pourtant état boobu bu ko déglu woon gëm naa ne ñun duñ ci jot te ay dëkkandoo bu ñu dëkkee jàmm daf ca gën ndax ay du yam ci bopp borom loolee nag mbas tamit mag ñi su amoon dañu doon wax ku ne mu tudd kàddu tuub ak jéggalu ñaan suñu borom mu baal ñu du ñàkk yow am na loo xam ne soo ko waxee suñu borom dina la rus yow tax mu jéggal ñu waaye ñun dañu ñëw indi leneen lu wuteeg la waroon a am mooy way te mbas soo ko day way day gën di sax te bu saxee day jël ñi gën a am tur mu yóbbu leen moo tax Euh, nañ ko tàmbalee ci réew mi dañu jum moo tax état dafa war am ay conseils yoo xam ne dañ jëm ci wàllu spiritualité état daa war a am koo xam ni su tëddee guddi ñu wan ko ndax état nguur njiitu réew mi bu tëddee guddi la muy gént ak man du bokk mën nañoo bokk benn gént mais duñu bokk interprétation réew nag su amee coow su bare ku ne suy génn doo xam foo jëm ñàkk xam foo jëm moo tax ku ñëw ku ne mën na laa yóbbaale kon man li may conseil ci mbas mooy ñu topp tegteel yi docteur wax ndax moo jàng moo xam mooy nañu takk masque yi moytu ndaje yi waaye nag te di utiliser des produits bio am na ci ay curcuma ay thym ay romarin yooyu day renforcer système immunitaire te système immunitaire moom lay feebar bi di dal te feebar virus bu la duggee day crée température température fièvre am intoxication intoxication fu muy ñëw mooy ci bakken te bakken mooy nit moo tax yóbbu la coma dangay ngay ba noonu ngay deme saafara baa ngi fi ah ndax bi mu nee bërët suñu borom indi na artemisia ñu tegal ñu ko mu ne leen lii maa koy saxal ndax fa muy saxee ci kaw la jóge ñu ne noonu gëmuñu loolu suñu borom toog ñu seetaan ñu waaw kay kon bu ñu déglu woon li fi nekk parce que dañu ne ku ci nekk fa nga dëkk màgg fa yaroo fa la fa nekk moo lay moo lay faj loolu du waxu tubaab waxu yàlla ji la soo ko gëmee nag faju ci sànq gëmoo loolu doo dem may ñaan moom mi suñu borom di borom lépp ak fépp di ñaan musaafara yëf yi ndax ay du yam ci boppam te dëkkandoo jàmm ci gën te saay boo yeewoo dégg ku mu yóbbu koo xam ni réew soxla na ko te xamoo kan la fan la ak naka la waaw li nga wax euh, loolu dëgg la ndax ñu bëri gis nañ fi ñoo xam ne dëddoon nañ fi ñoo xam ne ñu ràññeeku lañ te neen ñu mbas mi moo leen yóbbu kon foofa la nga wax moom dañ koy dëggal rek acca jërëjëf euh, Serigne Abdoulaye Ndiaye am na solo fa mu daaneele la waaye damay sampaat sama beneen laaj boo xam ne boo am solo la ndax ñun ñii sax dañ ciy ragal maanaam ñi yëngatu ci média maanaam côté média bi est-ce que am na mystique bi ñu tax nit ñi di wax mystique. waaw mystique moom foo làmb fu ne am na fa waaye jamono ji ñu nekk média daf ci bari lool te man su may wax fu leer laay wax moo tax du ma faral di wax fii laa waxee woon at parce que man li may wax fu leer lay teg média am na mystique ndax nit ki day nekk ci média di ñafe ba am place am koo xam ni mënul gëm ni kii war naa mën a wax te en plus dafa am ay émission yoo xam ni ku jooy ku ne da ngay dem foofu muy xalaas ñii dem xalaas ñii dem tës dañu jaaxle wax dañ dem police dégluwuñu leen ñu dem tribunal dégluwuñu leen te ki leen tooñ di leen tëkku saa su ne ñu tëdd ba guddi di jooy déglu xalaas walla tës seen rongoñ fuux ñu xëy suba daagu foofu ñu déglu leen ñu gëm ne am nañ fa solution te solution day am léegi nag yow su ma la tooñee ngay boroomi mbir ma wax la yow da ngay jàpp ne dama lay yàqal yow fajal naa la sa soxla mais man mi la waxal man mi la wane su ma deful nànk ka ka boole si ka ko tooñ daf may fitnaal mën naa la si jox benn misaal ah. am na benn jour benn émission nit ñi souvent dañuy wax ne Ablaye bul di wax non parce que réew mi lëndëm te booy wax naam am man loolu lay dund parce que xam-xam bi ma am xam-xam bu wóor la dafa jiitu suma judd moo lu may wax lu leen laay wax am na benn jour ci xalaas émission ñoom doy baan ma tëdd ba guddi man su ma tëddee dañ may wonal film lañ may tegal film boo xam ne mën na daw fii ak un mois ma seetaan ba doyal ñu tëj ñu wan ma lépp ma tëdd ba guddi rek ma jugal kër ga boo bàyyee tee ñu sànkaat leen muy RFM waxoon naa ko ci TFM du dañ Youssou Ndour moo ngi nii may jàkkaarloo ma tëdd ba guddi rek ñu yee ma ne ma jugal sa gaañi boo deful nànk dinañ leen indil ay yére te yére yooyu bu ñu ko solee bu ñu feebaree kenn du leen faj ma xëy suba génn wax ko suma frère ñëw moo ki ngeen dajal fii ma wax ko ko ñu toogaat deux jours yëf yi feeñuwaat ma woo meng meng tëngéej la dëkk moom mooy organiser genre corridor yooyu quoi genre xeet yooyu ay calebasse yooyu di honorer ñi nga xam ne siiw nañu moom daf leen di honorer ma ne ko yow mii nga xam ne yaay sargal ñooñu ma ne ko kat am na lu ñu leen indil te buñ leen ko indilee bu ñu ko solee su ñu feebaree dootuñu wér. mu woo leen xamoo nitu média suba boo koy woowee du la faale mu woo leen ñu insister mu xayaat suba insister waat mu xayaat suba insister waat mu xayaat suba wootaat jot jabaram ne ko waxal mu woo leen faale wuñu ko ñu xëy suba ñu indi leen yëf yi tak mu wooma ma na ma yëf ya nga doon wax ñëw na mën a intervenir lundi bi gaa yi def émission bi wax gërëm ki leen ko indil. ñu ne liñ leen indiloon ay pexe la woon kon foofu bu ñu sàgg seetaanoon musiba day am mooy émission boobu ñi ko sëqoon mooy DJ Boubs Mohamed Ndiaye ak Ndoye Bane suñ ko déggee nañ xalaat loolu suñ sa noppi woon bu ñu feebaree du ñu wér pourtant ñoom seen liggéey lañu nekk mais yow yaa ngi liggéey di dimbali ay nit boo tëddee doo nelaw ñu bëri ci média yi leen di daaneel mooy dañ leen di indil dara jox leen ñu sol ko boo fajoo boo wér te naa la wax dara ci wàllu mystique. gis nga mystique souvent ñu wane télé kenn nga xool takk nga gis ne kii mystique la suñ la defee dara fii ci réew mi soo yëgee avion soo demee ci beneen réew day wér mystique buggul attitude moo taxoon mag ñi doon wut njoowaan yenn saa yi ñu bu ñu wàccee ci njoowaan lañ def kenn du leen mën a jàpp. moo tax nit su feebaree fii mystique ñu jël ko yóbbu ko bitim réew buy àgg ñu koy faj muy wér mais buy ñëwaat néeg bi mu nekk dañuy changer lal bi dañuy changer lal bi changer position bi peinturaat mag ñi noonu lañu doon def moo tax souvent nga toog ba yàgg di sa lal ki nekk média nag su bëggee mucc ci yooyu wax naa ko ñi nekk ci média média seetu la te seetu ci xam-xam confirmation la day waat parce que boo nekkee ci média da ngay wut miroir def ko sa poset wala nga def ko ci sa capot oto da ngay jékki-jékki ko mu ne tas toj nga changé waat parce que fi mu toll kii seetaan télé day gis koo xam ni dafa ñafe ba ak ci foofu moom day bañ day soxor te fii soxor daf ci am kër ku ci yàlla dimbaliwul sànq la day yomb parce que ñun bëggantewuñu daal balaa maa génn ci ponk boobu sax ndax euh, naataango njëpp la to ñëpp dañ koy safoo mais temps ba ñu amee feebar ba léegi dañoo gis ne dafa xaw a euh, tawat maanaam nekkatu ci activité mu di gaaw la seek lan nga ñu ci mën a wax balaa ñoo génn foofu. waaw moom euh, dañu koy ñaanal ndax ku ci nekk rek saa boo yeewoo sa dund fii sax lépp suñu borom la te nit buy dund lu ne wér gu yaram yëfu suñu borom la wér yëfu suñu borom la. moom li ñuy def rek mooy ñaanal ko suñu borom dimbali ko taxawu ko saafaral ko mbir mi. waa xam euh, loolu da leen di dal mbiru mbiru musique la yàgg naa fee am soo demee en loolu lu tubaab bi miin la peut-être ñun dañ ko miinul li ngay utiliser lu bari am na noo koy utiliser day feebar mais su demee am na ay antibiotiques yoo xam tubaab yi médecins yi dañ koy faj waaw médecins yi dañ koy dañ koy faj quoi du du lu mystique ah su la jàppee doo wax gis nga mistik su la jàppee yow da nga koy xam parce que day feeñ ci ay reew te laatu mu lay dugg suñu borom dafa la koy wan misaalal la ndax suñu borom yërmande gi dafa yaatu si ñun ngir Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam tax lu ñuy dallu ne daf ñuy wan léegi nag lañ la wan ñàkk mën interpréter mooy tax nga daanu ci pax bi jërëjëf sëriñ Abdoulaye Ndiaye kontaan nañ ci moom wante nag euh, waxtaan wi itam neex na ndax euh, xam-xam ba dee feeñ gis ngeen fi muy tibbe ak euh, na koy daanele la muy leeral am na solo acca ñëwoon nañ fi mm, du ñuy xool def na at ak i weer ci li ñu waxoon ci émission bi xaaj bi yëpp mën naa ne teg nañ ci gët ndax dafa leer naañ liñ ci liñ ci wax yëpp teg nañ ci bët mais damay ñëw am na loo waxoon ci Birane Ndour. waaw moom Birane moom dama koy ñaanal jàmm ak salaam man TFM duma ko tàyyi di ko wax yàlla moom ma ca boole te man gëltaape laa yaroo te moom yaayam gëltaape la dëkkoon waa gëltaape ñoo ngi may seetaan man yàlla daf ma def ma teel a xam ay nit ñu am tur bi ma nekkee gone ba léegi moom dañ koy ñaanal jàmm ak salaam te am nañu njott ci rafet ci ñun foofu déggool li may wax lu fay daw lu ne ñu wan ma ko waxoon naa ko fi daaw du deñ moo waxaat la fële ci xalaas bi du dañ man sama rôle ci Youssou Ndour nit ñi xam nañ ko ci man moo tax bi ma gisee TFM bettu leen waxoon naa fi daaw ne la fay daw maa ko moom mooy émission firi génte bi man maa ko bind BGA moo ma jox kart bi lii findel na maa ko moom man du ma waxantu moo tax yii nii du ci dugg am na yu bari yoo xam ne su ma ca noppi woon ndeysaan ngay dégg man duma xaar ba nit ki daanu ci pax pax bi buy ñëw laa lay wan tëngéej gi ma dëkk njawatule laata muy faatu at wan nañ ma ko ne ma Ablaye jugal dox ci wax ci ma sol suma dàll dem rajo gis Ahmed Ba moo yor programme rajo Jokko FM moo ngi ma seetaan ma ñëw nag Ahmed lii laa gis xam nañ ma mu wan ma kër njawar ma dem ba kër njawar fekk fa gardien bi mu bañ ma dugg ma wan ko sama carte de presse parce que damay liggéey rajo Jokkoo FM pour lépp ma ne ko dama kaa soxla mu ne ma non doo ko mën a gis ma dellu si waat ñëwaat rajo waxaat amet mu ne ma dellu ma dellu ba muy ñetti yoon ma ne ko bës dina ñëw dinañu ma sa daje ma wax la li taxoon may ñëw fii te su boobaa su ma la ko waxee dinaa la fekk ci beneen anam bu bokkul ak boobu ñu teg ci ay ñu boole mag ki yor chargé lu jëm mystique bu njawar muy di yaayam ñu boole maak moom ma taxoo ak moom wax ak moom peut-être tolluwaay la woon ñu dem bay jamono yëf yi am ma dem ba ay jamono nag ki nga xam ne moom laa fekkoon foofu ma fekkaat ko ci beneen kër muy garde ma dugg gis borom kër gi ne ko yow xàmmee naa la maa la fekkoon diw bërëb mu ne ma ah, wax nga dëgg ma ne maire bi maire bi ne ko kii su ñëwee ci kër di la wax yu ni mel da nga ko waroon déglu pour wal na ne ñun fii la ñu dëkk même monsieur le maire mama yaa yàlla na ko yàlla yërëm laata muy faatu 15 jours nit gént na gént gi wan ma laaj ma ñu teg ñu dem ba ci yàgg yëf yi am président euh, conseil bi biñ ko sànnee korte maa woo jigéenam ne ko defal lii keneen ki fiy toog wan nañ ma ko xam naa ko te toog naa moom te wax naa ko ko waaye ci mairie bi ma ne ministre de l'intérieur Aly Ngouille laata muy toog wan nañ ma ko wax naa ko sumay ndijaay xam man samay ndijaay ñooy sama man samay mbokk waaw ñooy samay samay samay kii paska mbir moom boo ko dee def soxlawuma ku ma gëm ay nit ki mooy xam tolluwaay gi mu am xam ne yëpp kii la suñu borom dañ mos ci yi sax laata ñuy tëj suñu émission am loo ñu ci mosal waaye comme ni ma koy waxee wàccaguma la doo gisee ma ne la wàccaguma la taj biñ ne biñ ne dugg sa biir cabinet bi rek laata ñu def dara Youssou Ndour la ñu gis. mu nga le euh, kon ku ko xam nag xam ne am nga ak moom cofeel seen diggante doon na loo xam ne yéen ñaar ay mën naa ne comme xarit neen mburoog soow niñ koy waxee ba tax na yow du doon am na loo koy wax maanaam ci musique bi mu def ba léegi lan nga ñu ci mën a wax. mu continuer ni koy def wala mu dakkal ko fi mu ne nii. waaw xam nga xam nga Youssou mii man euh, su may waaju bi ñu ma gisee may liggéey TFM bettu leen ñi ma maaseel samay xarit bertu leen ko parce que daanaa wax ne bës dina ñëw dinaa mos liggéey ci Youssou Ndour moom ay followoon ba bi may dem TFM xam naa at bi may dem TFM te TFM la fay daw dama ca bokk parce que am naa fa lu fay daw wan naa la kayit maa ko moom. biñ leen songee 2016 bëgg yàq tele bi mystiquement dañu intervenir kon moom mi dama ne Youssou Ndour bu ko yàlla defuloon musicien gëm naa ne boroom xam-xam lay doon nit ku baax la nit ku yiw la nit ku baax mooy saay bu toogee waxam man ñaari yoon laa ko mës a gis en 2011 bi ñuy ñëw ak 2013 bi ñu ko falee ministre mu woote ndaje ne fii ñu ni nee na fi nekk yaatal leen yëf yi ngeen xam ne ñëpp dinañ ñëw fii amul dàq nit nañu yaatal yëf yi ñu jàppalante yëf yi yaatu na ku te ku ne xaj na ci moom moo wax loolu ku wax loolu nag beneen dimension la nit ku baax la nit ku baax la defaluma dara mais nit ku baax la mooy ku ne war naa mos dara yóbbu këram moom du dàq nit mukk te réew mi ñu toll nii ku fi yëngu ñu dàq la moom du dàq nit ah gis nga TFM da ngay nekk ba mu neex la nga bàyyi nekk ci leneen mais doo dégg mukk ñu ne dàq nañ diw su dee yaa ngi teg ci jàmm. waa xam musique bi moom continuer dara ci mbir moom day fekk nit ki ci boppam tolluwaay lay am loolu ci moom la waaye li ñu koy ñaanal rek mooy yàlla defal ko li gën ci moom yàlla defal ko li gën ci moom waaye bàyyi bi loolu nit ki la te moom ah, nit ku nit ku yàlla baaxal la daal <laughs> nit ku nit ku nit ku baax la daal waaw Youssou moom beneen dimension la. dafa baax parce que nitu démbam boo xoolee ci la mu doon def ci koor gi ci ci kii bi ci wéetal gaa buy wax ak ay xaritam lay waxal kon nga xam ne ñii mu ngi dund ak ay nitam waaw te baat bi ma jàpp mooy yaatal leen yëf yi ngeen xam ne fii ñëpp dinañ ñëw bariwulaa ñu koy wax te gis nga gaa yi TFM mën nga fa dugg ñu jël la nga dem ba mu yàgg nekk ci sa leneen la taxoon ñu jël la sax doo ko def ñu nekkoon TFM génn waal yëpp dem nañu Europe te bu doo ko nangu moom mi moo ko nangu parce que dafa gëm ne ku ne li nga xam te yëfam ku amul xam-xam doo fa dugg soo amul expérience li ngay def doo liggéey ci Youssou Ndour moom de. Euh, euh, kenn umpale wut nag réew mi tàngoon na fi jër coow lu rëy amoon na fi lan moo ko wundoon benn euh, wax bu ñu yëkkati woon muy mel ni tuuma niñ koy waxee teg ko ci lii di Ousmane Sonko seen diggante ak Adji donte wax nga ci li fi xewoon soo paree nga wax ñu seen avenir ëllëg. waa xam nga Ousmane Sonko euh, dama xam ay nit yu ko xam ay nit yoo xam ni usmaan bu demoon France day yànd ak ñoom bu julli jotee dañ doon jóge ci bërëb dox ba ay kilomètres di julli nit seedeen na loolu Ousmane nit ku baax la nit ku am lu mu gëm nekk ci di dox état ko non doo ko fi waxee dàq ko mu muñ gëm ne yëf yi yàlla la suñ borom jël ko seppi ko dugal ko fa ñuy seddalee muy doxal c'est la lumière jëmm la joo xam ne dañ ko indi ci réew mi ngir mu ñot danti bagages yi man Sonko laa waaw ah non coow loolu coow li boo demee Chine ku déggul nga expliqué ko balaa ngaa jeexal danaan la complot la parce que bu ñu nee bërët ñu xool oto ba la fa nekk di juróomi nit maanaam du débat man Pastef international dama ca bokk. bi coor gi corona bi commencé ñoom invité nañ ma fa panel may waxtaan ci wàllu coronavirus man dama ca taq rib te ku ko bëgg ma bëggal la ku ko bëggul bëgguma la. waaw non defuma dara parce que dama xam ne man ci moom maanaam mënuguñ ko xam boroomi mbir la yàllaa ko defar sëñ Ousmane Mbacke yàllaa ko defar moom mi yàlla bu la defaree waa defarin bi foog mu am waa ñu si bokkul dañuy tëb te day dem de kenn du ko téye waa xam nga bi xam nga ñaari mbir mooy am dama lay bëgg ci xel wala ma bëgg la ci xol bëgg ci xol day sax moom gars yi dañ ko bëgg ci xol. ki la bëgg ci xel nag mooy bu gisee situation rocceeku mais kii dañ ko bëgg ci xol te bu ko gaa yi jàppalee gëm naa ne day dem man dama ko gëm ko te gëm naa ne war naa mën a sori parce que état daf ko tooñoon. nit ku suturlu ci dara bokkuñu gis-gis nga seppi ko sànni mu muñ ci ñu borom indil ko confirmation pourtant ki fi nekk noonu la demee woon ah hmm? mais après daf ko fàtte. suñu borom indiwaat bëgg ñu jàngaat ci moo tax mu indi coronavirus bi teg ne ku am lu muy wax bàyyi leen ko mu wax soo leen ko bàyyil mu wax ma tas bagage yi coronavirus bi li ko indi yépp gis nga ñàkk déglu nit ke ñun ñàkkuloon déglu sa dee na pourtant bu ñu ko déglu woon mu kon yëf yi du agsi fii gis naa te li ma gis buñ ci jugul mu yàq waxtaanee ko ci seen groupe whatsapp yooyu groupe boo gis mu am na ay fake Ousmane ñun moom lañu gëm te gëm nañu ne war naa bokk ci ñuy doxal man dama ko gëm ah waaw. jërëjëf euh, sëriñ Abdoulaye Ndiaye gis nga moom lañ dalaloon boobaak léegi nag ñu nekkoon ci waxtaan bu am solo waaye comme ni ma ko waxoon sànq nag ndax duggoon nga ba dugg ci maanaam mbiram mérite foofu ni ñu ko waxee si ni xel day jëm ci élection yi ñoo xam ne ñu ngi koy waxtaan bu ak léegi mais dafa mel ni euh, dafa tàggatémbe nekkagut loo xam ne mën naa nekk mu di élection yi maa ci mën yi locales yi moom ay nit daal suñu bokkee dara di yëngu mm. dañu waxtaan ba jiboo gis nga waxtaan su amee rek suñu borom day intervenir te intervention suñu borom day jóge ci xol te xol bu amee rek lu ñu tënk tënkuloo ne teg ko téye ko suñu borom day valider mais bu ñu bëggee indi naka su dul noonu suñu borom daf ñuy toog ñu seetaan ñu def yëfu nit te yëfu nit mooy teg say plan suñu borom yëf def yëfu suñu borom teg ne dóor te su boobaa lay gën a ñàng li war a nekk nañ ko nekkal mu nekk nit ki def yëfu nit ñu bàyyi ak suñu borom élection yi su waree nekk nañ ko nekkal parce que fii nii yàllaa fi nekk waaw waaw yi moom ala kulial moom day nekk waaw non coow moom mënul ñàkk xam nga coow su amee rek suñu waxtaanee rek indi solution mais coow su amee ku ne di xëcc suñu borom day intervenir te intervention suñu borom day tegu ci ngëm ci pas-pas ci dëggu ci màndu ci yërmande ci jub ak jubal. ñu jàppoo ne bi dañ koy puus duñ ko puus coow li bëri na état moo pareegut wala opposant bi ñoo xamut fu ñuy teg seen tànk. waaw mais jamono ji ñu toll moom état moom mënul pare jamono ji ñu nekk ni état bu jógee day daanu parce que gis nga gars yi dañu mer jamono ji moom amul ay affaire de sériñ ak xool ak seet yooyu jamono ji luñ fi def état daanu li koy confirmer mooy li fi xewoon. kon état moom li ko ñor mooy su sañoon yëf yi dem ba cinq nit ñi xel yi dal yërmande gi ñëw ñu ne kon baal nañu leen mais instant yi baal amul te baal bu amul dóor mooy am te dóor bu amee mooy ëppoo day jël quoi wala bokk <laughs> <laughs> acam euh, Serigne Abdoulaye Ndiaye lañ dalaloon muy yëngatu ci lépp loo xam ne bokk na ci wàllum bio am nañ kontaan ak mbégte bu baax a baax moom nag euh, médecine traditionnelle ci la nekk gis nga cabinet bi li ngeen di gis xeeti baax baax yooyu yëpp produit yooyu ngeen di gis fii la moom moo koy gérer kon kontaan nañu dañu bàyyi nga tàggatoog mbokk internet bu 221 people. waaw mais euh, di leen di leen di leen bëggee comme ni koy gars di wax rek di leen jaajëfal kontaan ci yéen quoi di wax ne yéen yéen nga ca waaye ñun moom cabinet bio Mbaxama la. cabinet bi yaatu na boo demee Thiès mën nga am sumay produit Louga Mbour Diourbel Tivaouane Casamance itali Mauritanie foo nekk mën nga am suñu produit dañuy def ay livraison à ñun dañuy liggéey foofu ñu ñunoo travail man damay job damay dóor foofu ma ñun dañuy liggéey a ah, di wax sama gars yi sëriñ yi mm-hmm. nañu liggéey parce que yëf yi dëgg la bu ñu liggéeyee rek affaire yaatu ku ne na defar dara ñu teg kii bind xaatim mu bind kii defar pomaat mu bind ku ne ñu bind ñu teg ko ci yoon suñ ko defee askan wi jariñoo ci leneen lu ñu def lu ne suñu bopp la ñuy nax ndax feebar du naxaate nit nit mën na nax nit mais feebar soo ko fajul mu jur cancer nit ki nga war ko ñaanal waxoo ko lu mu mën a dégg tôt ou tard day daanu ci pax bi te yëf yaa ngi fi ah gars yi xam-xam dama leen di seetaan si ñi leen di invité yëpp ay borom kàngam lañu ay boroom xam-xam lañ maa ngi leen di jaar di leen bëggee ñoom ñëpp a ah. waa xam dóorkat moom dóor moom tolluwaay la rek xam dóor moom nit ki du question dóor sax mais tolluwaayam yàkkamtee te Mohamed man su ma la xamee xam bu yaatoo day jur yeneen i xam man moo ma dal ci deux cent vingt-cinq bi ma xam gaa ñëpp dama dañ may booleeg seeni mbokk. waaw des fois nit gént woo ma des fois ne ma seetal ma seet même seet bi ma jëm bi ma doon def sax nit ñu bëri dañ ma ci mere parce que aw ma temps man du ma tricher gars yi may seetaan après dañ ko def seen commentaire lu ma la wax takkal téere du ma dugg ci ay détails parce que dama am ay nawle te man bugguma ku ma ne yaa ma wax lii wala yaa ma def lii moo tax dugg ci ay détails waaw nag nit soo xamee sa bopp xam ni la yàlla may waaw da dangay ngay moytu soxor iñaan ak yenn nit lu ñaw ku soxoor mooy xamul boppam nit boo xamul sa bopp lu yëngu da naan sama yëfa waaw moo tax dama leen di jaajëfal ah, di leen di leen peace and love jaajëf